Yeah. toujours dans votre actu du jour de ce 14 août 2024 suñ fa jógee dañuy dem fële seeti ji ki nga xamante ne mooy l' Cheikh Thiam jiite mouvement boobu ma réew 3D dëgg dëggu dogu ginnaaw loolu nag mu jàkkale ak askan bi ñëw na indi ay leeral jëmale ko dal ci position bi nga xamante mom la yàgg jël ci lu bari lo xamante askan bi dañ ko doon yëkkati te mu wuteeg ñom xalat ba mu dellu ci tay ñëw fekk ci fi ndax té 1960 ba 2024 dañu sonnon ci ay politique professionnelle yo xamante dañ doon naax askan bi ba tax ñu changer réew mi jox ko ay populisme mais populisme yooyu nga xamante ne nañ ko Sénégal ci ay discours fukki at muy régime Bassirou Diomaye fay ak ki di premier ministre am won fi parti bi di Pastef jëmale ko daal ci ay discours yo xamanteni manipulation la discours yo xamanteni suñ ko xayma bu bare bare dara du ci won deug ndax lépp lepp lo xamanteni tegoon nañu ko ci discours biñu ñu ci bop rew mi defuñu ko donc ce qui veut dire que ils ont manipulé le peuple sénégalais ba egsi au pouvoir ndaxte tey benn ret mën na ko firndeel mooy appel à candidature gisuñu ko euh, li nga xamanteni moy enquête de moralité gisuñu ko ñaari nomination yi di kilifa ak ki nga xamanteni manam moy nit dof ku ko gis rek xam nga ni enquête de moralité amul jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy limogeage yu Cheikh Dieng boobu ca ONAS enquête de moralité su amoon du am donc lii di appel à candidature gisuñu ko donc waroon nañoo ak Sénégalais donc je crois que tey Sénégalais ñoo wara jël sen destin lepp lo xamante ñing koy gis ci yeneen réew bay jël ay gal di ko dem mën nañ ko def suñu réew lan mo ci dess manam moy ñu am ay nit yo xamante dañoo dogu ay nit yo xamante dañoo deggu ba nopi Sénégal rek ñor leen te duñu am discours populiste duñu am politique professionnelle dal di koy jégal askan bi donc je crois que lolu Sénégalais ñom ñoo ci wara yow ndax ndaxte 2024 da war a ñëw liñ leen jaayoon ci fukki at ci populisme ci ñent wër dafa daldi di mu ba nga xamante ñi andon ak ñom xeex ak ñoom gëmandoog ñom combat bi tay ñom ñoo njëkk a taxaw weddi leen waxtuma la nag ñi nga xamante ne mosuñu leen gëm du temps de l'opposition duñ leen gëm du temps de pouvoir et duñ leen gëm encore après le pouvoir à plus forte raison que ñi nga xamante moy mooy yi gis ngeen tay liñ tek seen dodd alors que dembu ñom ñoo andon donc je crois que le temps est venu pour que les Sénégalais se réveillent pour pouvoir faire leur choix et nee leen sanction bi fenn la ret muy aux prochaines législatives euh, dama daan wax wax ju bari lool te li ëpp ci askan bi li ci gëna bari daaw mo bokk ak ñom fu ñu jëm par rapport ak ni may kon seen jotaay ci sama ginaaw kon xamal na ma ni ma ngi ci yoon bu baax et ñu ngi ci yoon bu baax comme ni ma ko waxe rek dama koy répété waat xamna qualité yi ma yalla defal mais non la xamé timit faiblesse bi maam am li ma yàlla defal moo ma rew buntu la bu ubbeeku kep kuy ma réew ak foo mënti nek ci aduna bi mu mas la interpeller xamal ni sa place ngi di ma réew am président mouvement mais amagul ku war a président peut-être pour élection présidentielle dama koy wax parce que mën naa am suba ma gis ku ko a mérito mën am ci yéen ñii la kenn wala kenn mbokkam bu n'ek bitim réew moo tax may di leen wax ni les sénégalais choisis et les sénégalais qui ont compris comment bouge le monde d'aujourd'hui foo leen mën ci nekk ci àdduna ma réew dina leen interpeller dina leen xamal ni réew yoy ngeen nek ñakul dara ay ñi a ko fa def te loolu mën nañoo fexé ba mu am ci suñu réew mi ma am mbégte nak ku nekkoon ci palaasam di wax tey ñu dajee cees daanaka li ñu manqué li ñu manqué li ñu li ñu mat juróom fukki nit bariwul yaakaar naa bu ñu wootee waatee dinañ am 46 waaw dinañ am lu lu gën a kawe suñu jortu may rafetlu di leen sant di leen gërëm kenn ku nekk ci yéen vraiment jéego yi nga def pour ñëw fii yàlla na ko yàlla def xéwal pour mu nabi Sénégal maa ngi wax ak réew yi nekk bitim réew yàkkamtee gis image yi ma leen di xamal ni ñoom ñëpp fàttewuñu leen Nous ngi leen di bàyyi xel di leen xamal ni mbir mi mbir la ma répété il n'y aura pas un messie qui va tomber du ciel pour changer la donne ensemble nous allons construire réuni. changement bi ci suuf lay jógee jëm ci kaw ñun tabac. ko mën a tabax ma le di nous allons fi may daaneele mooy ñu ngi jëm ci histoire du Sénégal pour une grande première dans l'histoire de notre pays nous jëm ci ay élections législatives yoo xam ni enjeu réew la aju Nous xam de 1960 à 2024

Qui nga xamantene moy parti au pouvoir du am ben député fofu ci assemblée générale je crois que loolu rek un clavage pour xamantene meun na len sanctionner delloo ci len à la raison ñu xamné que discours populiste est réel. programme moo yor réew livre solution yorul réew maanaam sosalaate yorul réew inventé yorul réew jël say responsabilité te assumer loolu moo yor réew ndaxte nit doo jël sa coobare dem dugg fi nga xamante ne tey dala jural musiba nga xëy suba di naan président bi fi nekk moo ma complété moo takk sama tànk moo takk sama loxo moo dugal diw sama gémmiñ ba ma la dem foofu alors que ba ngay dem tàgg woo ma sàmba tàgguwoo ma dem ba nga xëyaat yor sa làmmiñ yëkëti sosal doomu aadama ba dara fekk la ci nga perte candidature je crois que sénégalais yi ñoo ci war a jël acte ba jëmale ko ci prochaine législative rek ñu xool lépp lu ñuy xeexee li nga xamante ne mooy régime actuel bi ba kenn du ci am li nga xamante ne mooy député gis ngeen démb c'était la presse sénégalaise qui s'est mobilisée pour faire une journée sans presse en tout cas muy ay jafe-jafe yoo xamante ne daal sénégalais yi ñoo koy dund te ñoom ñoo ko teg seen bopp parce que ñoom ñoo choisir ñi nga xamante ne discours populiste lañ defoon alors que discours populiste bi li ko muuroon yëpp ci ñeenti weer yàlla muri na ko diggu ba ndaar kam ba sénégalais bu nekk teg ci sa bët donc je crois qu'il est temps que le Sénégalais puisse réfléchir et choisir son destin à main et choisir un Sénégal prospère et choisir un Sénégal droit un Sénégal démocrate un Sénégal bon comme du dictature fi règne après la dissolution de l'Assemblée nationale avec les prochaines élections législatives montrer à ce régime que nous nous vous avons élu à la tête de la euh, République du Sénégal mais nous pouvons aussi vous retirer les plans et projets de loi pour que ngeen doxal li ngeen bëgg te loolu duñ nationale